lan ngay wax ci ñi nga xamante ni dañu jàpp ni Amadou Ba bu échecé ci yéen la yéen waa bennoo pas tout le monde mais il n'a pas eu quand même l'appui wala boog le soutien de tout le monde et même le soutien du président man loo wax boobu ñi koy wax euh, waxu yàq la est wax boo xam ne xëy na xamuñu lu xew man li ma jàpp. nga jàpp ñi nga xam ne dem nañ battre campagne gagné seen gox ak candidature Amadou def nañ li leen war ñi nga xam ne tamit dem nañ mais dañ leen gagné def nañ lu leen war mais taxul ñu gagné kanaa kon Amadou Ba Dakar région de Dakar la bokk. bokk mhm. Parcelles Assainies kon Amadou dafa jàmb boppam Dakar Amadou Ba dafa perte parcelle perte Dakar perte région de Dakar moom ak tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar compris moom mi nga xam ne mooy suñu candidat est-ce que moom dafa jóg pour trahir boppam Dakar. fi ñu perdre dañ ko waroon perdre perdre nañ ko def nañ li ñuy war jotuñu ko nañu gëm yàlla bay wax boo xam ne wax bu ñaaw la bennoo bu ko wóolu woon du ko investir Macky Sall su ko wóoluwul woon du ko investir buñ ko wóoluwul woon du ñu ànd ak moom topp ndigalu président Macky Sall dem ci àll bi dem campagne ku ci nekk dellu ci sa gox ñii yàlla may leen seen base ñi gañe ko nu mu waree ñii euh, def li leen war mais yàlla mayu leen donc loolu mooy politique mais boo fi teg nekkee di wax ne kii kon man dama jàpp ne kon loo ci wax rek wax ñi nga xam ne amuñu li ñu bëggoon pourtant Amadou Ba bu sañoon mu gagné Dakar lan mooy avenir am biir Benno Bokk Yaakaar waaw loolu moom man jàpp naa ne sachant que ci élection yi moom euh, hmm. loolu moom moo ko moomal boppam parce que kilifa la mag la xam na politicien la xam na lu xew donc avenir am moom moom moo koy tontul boppam. loo koy conseillé. ah mu nekk ci benn Bokk Yaakaar nekk ci Alliance pour la République nekk ak ñëpp bo ànd ak ñi nga xam ne lépp lu président Macky Sall bugg ëllëg ak ci biir. Mhm. mu jéem a regroupé ak ñi fi Macky Sall bàyyi nekk benn ak ñoom bañ a génn fenn bañ a dem. loolu nga koy conseillé tout à fait.